mais léegi soo xoolee y a une quarantaine de promoteurs. donc bëri nañ dans Dakar et dans les régions. Mm-hmm. Euh, donc niveau boobu su yokkoo rek. Mm-hmm. c'est parce que ça intéresse. Il mm-hmm. y a les gens. ils veulent venir découvrir su ma nee ils veulent venir découvrir mooy on peut parler des MMA. ñu di à l'étranger mm-hmm. di ñëw Sénégal pour découvrir mm-hmm. récemment rek on a eu euh, benn délégation boo xamante ni waa lutte euh, française ñoo fi nekkoon mm-hmm. bëgg def ay échange ak waa lutte sénégalaise donc ça veut dire ni que ñun toll nañ ci niveau boo xamante ni léegi war nañ jox làmb gëddam loo xamante ni ñu ñoo ko moomal suñu bopp c'est qu'au Sénégal ngay gis làmb bëre door sans gants sans protection donc suñu culture la euh, su demee nag ba yegg ci niveau bi liggéey bi lu ci ëpp mën nañu wax ni que euh, Gaston Production joue na ci un grand rôle un pourquoi parce que ça fait ren trente-deux ans à peu près trente-deux ans depuis depuis quatre-vingt-douze en fait Gaston Production ñu di xeex di xeex di xeex ba lamb yegg niveau bi mu yegg avec l'aide aussi de beaucoup d'acteurs ah production kase mais moom moo gën a dëggal boppam ci wàllum làmb ba niveau bi yegg si fii ba soo xoolee ku bëgg jaay su produit euh, muy sponsor yi suñu bëggee seen produit fës xam ñoom xam nañ ne que la lutte c'est le meilleur support de communication en absolu donc dañuy ñëw seet si ban ñoo gën a alléchant donc ñu ñëw ñu seet ci promoteur bi ñu waxtaan pour ñu taaralal seen euh, seen produit même les politiciens politicien bu bëgg si tey lu muy gën a xool mooy bëgg ñu tuddee ko làmb wala mu ñëw paree na benn làmb yooyu daf koy may visibilité moo tax làmb instant bi nii vraiment c'est c'est un joyau dans notre pays mm-hmm. bilan bi ñuy wax nii de 2000 euh, de janvier à aujourd'hui euh, soo xoolee làmb journée yi ren pratiquement tëgg nañ tous les week-ends muy samedi et donc mën nañu wax ni que un bilan positif un bilan positif parce que mbër yi gis nañ ci seen bopp am nañ ci xaalis amateurs yi bég nañ parce que tegal nañ leen ay affiche yu neex ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu gis ci seen bopp donc dañuy wax rek alhamdulilah mm-hmm. mais aujourd'hui euh, làmb peut-être euh, année bi euh, reprendre na un succès wala son succès d'attend mais année yi jàll quand même ñu si dañ doon kaas doon wax naa làmb ji dafa dee kenn bégalatuñu y'a plus de combat c'était dû à quoi selon selon yow bon c'était dû au au retrait au retrait auprès de certains promoteurs yoo xamante ni dañu demoon quand ba am benn difficulté parce que aussi di jël sa alal di ko def ci làmb te amoo ku la jàppale des fois yow ngay jàppale sa réew dafay metti donc certains promoteurs ont dû reculer Gaston Production à un moment donné il a reculé pour mieux sauter bu muy euh, ñëwaat c'était euh, pratiquement muy Covid bi bi lépp nelawee bi lépp taxaw nit ñi commencé sonn bon ci lañ jóg non il faut qu'on fasse quelque chose il faut que ñu contribuer au moins ci suñu développement au dëkk activité yi jógaat ci la ñu commencé tous les grands combats boobu fekk taxawal nañ ko jox ku nekk avance juste pour suñu économie dëkk ñu yëkkatiwaat ko à travers la lutte mm-hmm. donc euh, moo tax mën nañu wax ni que làmb day sa fait partie du développement de notre pays. Mhm. pourquoi je dis développement parce que ñi ciy gagné en fait dañu bëri finalement. ça crée des emplois certes mais emploi indirect yi muy gën a créer moo gën a bëri jaaykatu ndox yi jaaykatu sandwich yi ñii di defar t-shirt euh, ñi ciy gagné en fait dañu bëri impression yi foog nga dem commandé ay blouson ay bâche ñoom tam nañ ciy gis seen bopp. Euh, au stade ñii di nettoyer dañu ci gis seen bopp ñii di jaay billet le transport ñii di jógee fu nekk dinañ di ñoom tam dañ ci gis seen bopp donc c'est c'est vraiment quelque chose loo xamante ni le gouvernement l'a compris le gouvernement l'a compris d'ailleurs raison pour laquelle ñu defal ñu arène nationale d'une valeur de 32 milliards euh, ñu ciy saluer à euh, son président son excellence Macky Sall au passage parce que ci nguuram lañ ko amee mm-hmm. loolu suñ ko amee mooy état bi am na fu mu teg làmb hmm. récemment rek euh, le ministre monsieur Lat Diop recevoir les promoteurs pour euh, présenter ou pour nous présenter aussi un directeur du stade de l'arène pour bëgg ñu ànd liggéey juste le développement de la lutte. Mmh. aujourd'hui combat Balla Gaye Modou Lo je pense que euh, maa ngi naan Balla Gaye Modou Lo ma nit <laughs> Balla Gaye Modou oh sama mbër mi. kan mooy ci sa mbër. non non non non sama mbër ah. li nga ne oo rek. xam naa kuy sa mbër xam nga mais Balla Gaye maa ngi naan Balla Gaye tey Balla Modou Lo Boy Niang hmm, Balla xam naa day waaj a ñëwaat rek. Modou Lo Boy Niang bi nga xamante ni euh, moom ngeen dëkkmal pratiquement en début d'année rappelle-moi la date c'est le. le premier le premier janvier 2024 exactement euh, mu nekk un combat de choc boo xamante ni vraiment euh, pratiquement commencé na alimenter beaucoup de discussions ci mbedd yi ci toile bi. yi ci médias yi et cetera est-ce que euh, yow en tant que promoteur euh, réaliser nga impact bi nga xamante ni moom la euh, combat boobu am parce qu'on parle de combat royal quand même. oui combat royal combat de gladiateur. Mm-hmm. combat de VIP. Mm-hmm. même super VIP parce que c'est les deux lutteurs les plus cotés actuellement. Mm-hmm. donc pour le 1er janvier une date historique. ku ko tëgg Gaston Production. donc événement la. événement la drapeau de son excellence monsieur Macky Sall. lu mm-hmm. parrain d'honneur Amadou Ba. Euh, lamb ji ñi koy coow instant yi dañu bëri. Mm-hmm. te yamul Sénégal kese. Mm-hmm. même waa diaspora ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar. Euh, donc fu mu nekk nii bopp koñ boo dem. grand place boo dem moom la ñuy waxtaanee. kuy daanu yàlla moo xam mais Modou Lo moo yor couronne bi. neenu du ko joxe. booy ñaa moom nee na da koy foqati. Mhm. su Pikine fan yi li leen parcelle dafa métti de. dafa métti donc mhm. booy ñaa actuellement euh, position bu mu nekkee nii s'il a pas sa rek mën na déraper. Mhm. mais il est mature. il am na staff. Lo aussi il est te am na staff. deux sportifs. deux ko waxee. ñoom ñaar ñëpp dañu ay bandi géew. te dañu yàgg dëkkuwante aussi waaw dañu yàgg dëkkante ay mhm. bandi géew lañ euh, parcelle Pikine la ñu wax mais suñu nee parcelle Pikine aussi c'est pas seulement parcelle Pikine parce que àdduna mooy xaar combat bi. Mhm. mais aujourd'hui euh, Makan yaa ngi koy wax léegi euh, l'ampleur du combat on n'en parle plus mais il faut dire que euh, da ngeen ko ci premier jour de l'année veille bi nekkoon li nga xamante ne moom moo di le réveillon du nouvel an concernant les revenus chériques parce que ku ne xam na ni le promoteur quand il investit ses sous c'est reprendre d'autres peut-être ci entrée ci sponsor et cetera mais pensez-vous réellement que les gens ak violence bi ñuy dégg ci et cetera un premier janvier. dinañu déplacé wu dem stade. bien sûr le 1er janvier sooy fàttaliku le 1er janvier Balla Gaye le stade était super plein stade bi musul woon feesee mm-hmm. et notre défi c'est de faire la même chose à ce 1er janvier 2024. Mm-hmm. Euh, ñëpp a ngi seen kër férié na amuñu lu ñu def. ñii di leen ko seetaan. moom dinañ seetaan mais dem bi est-ce que dinañ dem. moi c'est ça mon souci. non dinañ dem parce que waa que dañuy gunge Modou Lo. Mhm. waa Pikine dañuy gunge Boy Niang. Mhm. les amateurs dañuy dem stade seetaan parce que spectacle la événementiel la te sénégalais dafa bëgg événementiel. Mhm. te ñun on fera tout notre possible dinañ def suñu doole yëpp pour réussir cet événement. pour bégal amateurs yi ñuy déplacé wu seen kër ñëw ci stade bi foog ñu def le max pour bégal leen mm-hmm. ci côté culture mm-hmm. ci côté organisation mm-hmm. et ci côté sécurité surtout man sécurité laa jiital lépp avant tout mu ci nuyu commandant Ndaw au passage mu ci colonel Mbengue de surtout fi muy amee ak fi pikin pratiquement lay amee et waa Pikine ñooy bëre jour boobu de surcroît est-ce que vraiment jël ngeen tous les euh, dispositifs sécuritaires parce que c'est important nag Makan bu làmb jeexee ni nga xamante